yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk nga xam ne ñoo baaxoo di ànd ak ñun ci séntu weer wi ci weer wu jot ci weeri wolof yi. ñu di ko ànd ak commission bi nga xamante ni bii Serigne Mouhamadul Mamoun Boussa moo ko jiite ànd ko ak Serigne Abdou Diop ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ñu koy amal nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu jot ci weer wi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul tey ñaan suñu borom yàggal ko fi lool doole ak wéram eh, dañuy àndandoo ñëw ci jumaa bu ñu sëlmalee timis sëriñ Abdou Diop imam dana yëkkati kàddoom ci rajo jumaa ji wax na sëriñ bi nee na nañu maase séntu weer wi te lu ci xam ku xam lu nga ñëw yëgle ko suñu defee loolu ba noppi nag danañ maase dégluwaat xabaar yi rawatina ku mel ne sëriñ Bachirou Mbacke Moussa Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo dox suñu diggante ak waa Darou Mouhty waaye nag ak sëriñ moo Modou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif Zalde Mouride ne ci région yi ak département yi moom it danañ ànd ak moom muy déglu département yi ak région yi lu ci xew dana woote ñëw wax ñu ko eh, léegi nag eh, dañuy bàyyee kaddu gi ak sëriñ Abdou Diop imam mu yëkkati ay kaddoom ci li nga xam ne moo jot ruuse fii ci nga xam ne moo nekk ci jumaa ju mag ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw nii ko sëriñ Fallou Garas waxee rek noonu lañ ko defee ndax ñaar fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëriñ bi danoon yebal ci rajo jumaa ji ñu yéene wax ne nañ séentu weeretu lu ci waaye xam nga ñëw yéene bu ñu defee noonu ba noppi ne dañuy génnaat ci soow nag toog nun commission bi nga xam ne sëriñ Modou Mamoun Boussa moo ko jiite di séentu weer ak di taatan xibaar yi ci gox bi gox yi ban ko defee ba waxtu wii jot nag boole euh, bari na béréb yu baree bari yoo xam ne xibaar jóge na fa jot si jot si ci nun wane ne gis nañ weer wi ba ci biir Touba gi ci jànnatul waa am nañu ko fi ñu ko fa gis bañ def ak ak ak ndaam ak ndaam nga ci sëriñ ak yeneen béréb ak cekkin léegi nag biñu defee noonu dañoo jokkoowaat ak kër Cheikh Mouhamadoul Mountakha yëgal ko loolu biñ ko ko yëgalee léegi muy mu ne loolu doy na kon mën ngeen ne yëgle ne weer yu feeñ na kon suba mooy korite na ko ñëpp xam kon suba ci àllarba ji mooy benn fan korite gi na ko ñëpp xam kon nag ñoo ngi ñaan sëñ bi gën fee yàgg bu baax a baax te ànd ak wér te ñu yàgg ci gannaaw waaw muuru koor yi ñu gaaw génne ko bala ñoo ji ndax waaw muuru koor yi nañ gaaw génne ko bala ñoo julli ji ndax waxtu wii la war te léegi bu ñu njëkkee ba julli ji ba ñëw léegi da ko yonente bi dafa wax ne ku ko di génne it sarax nga génne waaye génne woo muurum koor kon nag mënees na ko koy léegi nag liñ fii moom li ñu wax ne moo mooy mooy li ci gën a fës ci kii mooy ñaari kilo ak genn wàll libar ñaari kilo yi ceeb ak genn wàll libar wala pepp wala genn wàll libar ndax li ëpp ci li dëkk bay dundee ci koy génne kon yaar yooyu moo ëpp ci li li ñuy dundee fii kon ñu ko bu baax tey ñaani tey xam ne nag génn nañ ci woor weeru koor waaye weeru ko liñ ci doon jàpp ak liñ ci doon bàyyi lépp day nañ ko gën a nañ ko gën a yokk loolu daa mel ne loolu ci doon yëngatu la ngir mu suñu yaram miin ko waaye diggante koor yeeg jàng alxuraan yi diggante jàng alxuraan yeeg eh, saraxa yeeg joxe lépp rek nan nañ ak jaamu yàlla yi nañ ko gën a ful niñ ko fulee woon ci kor gi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum jërëjëf euh, mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi doon teewlu ak mbokki téléspectateurs yi ñu leen xamal ne weer wi feeñ na kon suba mooy doon benn fan mooy doon julli korite gi ñu xamante ne fii ci Touba ñëpp gisoon nañ weer wi kero dimanche bi muy xëy nga xamante ne bi àdduna bépp tegoon seen bët kon ñu jàppoon ne démb mooy ñaar fukk ak juróom-ñett mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent ndax dimanche weer wi ñëpp teg nañ seen bët te weer baaxoo wut a xëy dimanche xëy feeñ altine kon ñu jàpp ne kon tey jii mooy séntu bu njëkk yàlla dogal na it biñ ko séntoo gis nañ ko ci ndaam nga nekk Saloum ku ne sax si gis na ko waa ni loolu nag mooy xabaar yi nga xam ne moom lañ jox Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha mu wax ne kon nañ def déclaration wane ne kon weer wi feeñ na suba incha allahu rabbi mooy julli korité dëppoo ak àllarba incha allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra ataa bil bishri wal madadi